ñun ñoo fi dëkk ñun fii bi dëj bi amee ñu fa jiitu di police ñëwee ñi fa jiitu si lañ bokk kon ñun ndegam ñun ñoo taful ay photo wax ñu ñuy dëkk Pikine yaroo Pikine màggee Pikine xam li xew lépp tafuñu photo waxuñu dara ñii waruñoo wax dara nit booy wax si moom da ngay wax si moom loo xam voilà ama lan la laa bëgg man man tuumay ñuy jël di ko teg si kaw dëru Pikine laa bëgg ñu bàyyi ko Pikine fatu Pikine fatuñu góor jigéen fatuñu bandi fatuñu agresseur li ngay xam nga li ma lay ñun ñu nekk nii ku ci jël saaga yaa ngi nekk laa jël man sama bopp man yow laa ngi dund ak pleine de sécurité la wax dëgg la ma ni dëgg bi dëgg bi mën la ñaan bu mën naa la may loolu waaw man loolu laa la ñaan mën naa la may loolu caméraman boo xam ne jël nga saaga ay photo ni di ko taf yooyu pour lan mais waruñu jël ma dafa nang yow tey sa photo sa mbokk bu ñu jëlee photom ñu taf ko yaa ngi dégg ak bakkee ni doomu ni mu fooree nga jël taf ko ne noo diw moo rey te ki nga waxe amoo si lu la leer police mi ngi def liggéeyam gendarmerie mi ngi def liggéeyam ñun ay civil lañ dañu war a yam place civil policiers yi bu dee xarañ ñooñu gën a xarañ téeméeri junni yoon Adrame Sarr mi dossier bi xam nañ ko depuis Tëngéej avant moo ñëw fii Pikine bu fekkee si loo xam la jaar lépp lu si wàllee dina leer mais yow nekkoo Sénégal nekkaale woo Sénégal taf sa life bëgg bës di war rey jël photo ni di ko taf yooyu rafetul bu dee Nabou Leye ak ñii ñëpp ay jullit lañ ay citoyen sénégalais lañ ak nuñ ko mën di defee ak si anam buñ ko defee nañ bàyyi ñi leen war a atte leen parce que ñii buñ génnee fii ku leen xor yoon lay jël teg la si yoon parce que amoo droit atte amoo droit lii affaire de justice la ñu ñëpp ay citoyen lañ nañ bàyyi justice def liggéeyam man loolu laa bëgg ñu wax ko Pikine fatuñu bandi fatuñu sàcc yi lii ñoom seen biir la ñoomu neen la ay du yem si bopp borom si ñoomu neen la ñoom xamante nañ seen biir ñi ñuy dëkk Pikine déggoo benn responsable wala benn nitu Pikine bu mat Pikine nga koy gis muy wax ñi nga gis ñuy wax ay vidéo di wax yëpp du ñu ay waa Pikine magi Pikine dorosine fi nekk yëpp kenn waxu si kenn defu si dara parce ñun bu ñuy wax dañuy wax si loo xamante ni luy jëmale Pikine kanam la ak lu yenu maanaa Pikine la xam nañ ko bu baax mais ku si am sa problème ba ñu rey la si àll mbaa nga am sa problème yow na sa bopp yow mais nekkul kenn du wax si moom naka sudul ku nekk xam nga sa problème mu bopp lan la man maa wax man maa jël sama responsable bopp kuy attaqué ñëw nga attaqué ma fi ma dëkk voilà.